waaw waaw nee naa la sëñ Modou borom jaaro bi yegg si na moom li nga xamante ni bu yeggsee dafay daal di neex jaaxle jeex ci réew mi ak bitim réew sëriñu lasaar la nee naa leen seet bu gaaw seet bu wóor sëñ Modou borom jaaro bi da koy def nee naa leen moo ci mën wala li nga xamante ni mooy li saxaar da lay wax li nekk ca kanam ak li nga xamante ni moom nga paas li nga xamante ni da nga bëgg bayre bu saf sàpp bayre xaalis foo am li nga xamante ni mooy xaalis nomba karange ak li nga xamante ni mooy tul mën a am li nga xamante ni mooy assurance baas moom sëñ bi da ay defar waaye yow mi nga xamante ni dangay bëggante nopp ñaari nit yi nga xamante ni dañoo bëggante lool ba jéggi dayoo sëñ bi day liggéey li nga xamante ne mooy nopp ci nu mu gën a gaawee waaye yow mi nga xamante ne da nga bëgg tukki tukki tëla fu nekk nga dugg fa di la jënd li nga xamante ne mooy papier ñëw si sëñ ibbeeku bëgg li nga xamante ne mooy bayre foo tollu gaay yi wër nga yor place ak foo ti nekk yow mi nga xamante ni da nga am faiblesse sexuelle la mënuloo sa soxna dara amee hémorroïde interne wala externe bu nëbb bi wala bu xamante ni mooy bor kenn mënu la kaa fay xanaa ak sëñ bi moom mën moo ëpp doole nee naa la sëñ bi benn sëriñ la nee naa la sëñ bi mooy borom jaaro bi nee naa la jaaro la ci biir jaaro yi képp ku jëflanteeg moom nee naa la sungufam benn sunguf la ci réew mi sëñ morom borom jaaro bi ndaanaan la ci biir ndaanaan yi टाइफ करो ने nekk ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salde de ngeen mën fi fekk ay karo décoration yu amul fenn ay carofeyeuse pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay caro parquet lépp am na ci biir Taïf Caro ay caro espagnol 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Caro li ci gën a neex mooy Taïf Caro defal clients yi promo boo jëndee caro yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Caro nee naa la matérielu sanitaire. Air ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy 16 anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau 2 wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88. 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. ayca mbokk xarit yi ñu amaan mbégte contentement bu baax a baax Khalid mu ngi leen di ziar bu baax si site bu mag bi di Lutte Motivation di leen jaajëfal mais di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lal hôpital yi di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wér la également tamit di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la caab féetee ginnaaw di leen ñaanal li nga xamante mooy liberté ba ñu mën a génn dem wooyal li nga xamante ne mooy seen activité waaye di fekk ki nga xamante ni mooy doomu dàngu mu amoon li nga xamante mooy convocation si diggante ay mbir yi nga xamantene mo amone fi nga xamantene moy mooy stade Ngalandou keroog ci journée Rio Events mbokki dama koy baye mu nuyu ngeen bu ko defé ñu way li nga xamantene moy mooy waxtaan ak actuatel ma ngi lay ziar. Dramé onsi bi laa bismillah ni wal yalla bi ñu santé suñu borom julli sangu-sang yi sant suñu wajur bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di gërëm aduna ñëpp di nuyu ñëpp aussi wa vraiment di leen xaar bu baaxa baax wa lit motivation ah. tay sa teewaay biir CNG tay yite yi lan la.

comme ni ñu koy waxee rek ñun moom képp ku ñu xam xam na ñun doxuñu si yooyu quoi mais bon des fois aussi erreur mënul ñàkk parce que amul benn doomu aadama bu fi bu fi bu fi mat suñu yaram tàngoon na ñu échanger tey xam nga waxante far ay ku jug fa donc loolu erreur la suñu suñu suñu suñu côté aussi ñu ñu accepté ko de même que aussi moom erreur la ci côté ñu accepté ko quoi waaye te am naa yaakaar ne loolu dootuñu daldi suñu carrière incha allah. Hmm. ñu gis yéen a nekkoon invité d'honneur waaw foofu nag comme ni ma koy waxee rek peut moom man maa ko fa indi mais man moom indiwu ma fa. parce que Tëngéej moom comme ni nga waxee rek yaakaar naa ne journée bu fa am surtout Rio man ma bokk ci biir. dama bokk si ñi nga xam ne dañuy organiser. preuve ko rek làmba ji man base d'organisation laa takkoon. te nekkuma woon sax aussi comme ni nga koy waxee antenne pour pour pour pour pour pour pour pour maanaam di échanger teg ma maam la quoi preuve ko rek ay carax laa soloon. ok mais booyee xanaa ñu bëgg làmb jooyu sa diggante ak Mame ba tax na nekk fa tëkkoon ak yooyu noonu bay nar a sànnante ay chaise te am na fa ak yooyu noonu ak ay barrière waaw non Mame la moo bëgg suñu combat ma gis na man combat bu jaadu la ñu ñu koy waxaale booy yi comme niñ koy waxee rek tey jii mbër moom bu am tur bu nekk boo duggee ci làmb soo sañoon say rak topp la di la tënku loolu la woon quoi rek tey ji loolu ñun mënuñu ko bañal boo yooyu jaadu na aussi bu ñu gisee mbër bëgg a bëreek moom ñu tëkku ko eh, mais du ñun ñoo leen yabal wala lii wala lee eh. entendre bi lan la leen ci wax ak lan ngeen ci jëlee tamit waaw yaakaar naa ne lu mu entendre moom wax na lébu dañu oo jox ñu parole ñoo aussi ñu wax ni nga xam ne noonu la fa situation bi demee woon ñoom aussi ñu waxtaan ak ñun aussi li nga xam ne tey ji moom la règlement bi maye tey ji amaana ñoom déglu nañ ñu donc ñoom lépp lu si mënta am rek dinañ revenir suñuy suñuy ménagère quoi. dañuy xaar PV quoi. waaw dañuy xaar PV mais comme ni ñu koy waxee rek waxtaan nañu ñun conseil nañ ñu xam nga. vraiment ñu am contentement trop par rapport ak accueil ak dalal bi ñu bi ñu defal quoi. bi nga dalee bëre ba tey yaa ngi door am ay convocation ñu woolu la wala ci ay affaires yu mel si histoire. waaw non c'est la première fois bu dul loolu peut-être ay dégâts la yu am ci làmb ñu convainqué la après entendre la mais bu dul loolu moom ay tënkunte nii c'est la première fois ñu convainqué ñu si quoi. am nga ci regret. am nañ ci regret. am nañ ci regret quoi parce que suñu image aussi képp ku ñu xam rek xam na ñu waruñu ñëw si CNG parce que dañ doon jàppanteeg mbër lii lii lii ba ñu convainqué ñu quoi regret boobu lañ ciy am. sa diggante ak Mame Balla mu nekk làmb joo xamante ne làmb coow la. fan yii yëpp gars yi ñoo ngi koy wax ci li nga xamante ne mooy internet bi gars yi ñoo ngi koy publier tamit ci Facebook beeg yooyu noonu yooyu boo koy gis. waaw non làmb la parce que làmb la boo xam ne tey jii promoteurs yi pare nañ pour tegu ko. comme ni ñu koy waxee rek mbëri aussi pare nañ pour bëre ko peut-être accord moo amagul. suñu côté bokk ñun ak promoteur yi xaw ma nag maam Balla ak promoteur bi quoi. ok euh. mais yow dégg nga ne dootoo bëree tey ji ci ay affaires yoo xamante ne nekkul yooyu lan la. non ñun suñu carrière yëpp boo xoolee dañu sacrifier si lu bari si ay côté kase yooyu noonu pour bëgg a bëre. Eh, mais nag comme ni ñu koy waxee rek làmb dafay am fu muy toll moom. dafay aussi am lum la lum la lum la jox ñun mënuñu nekk làmb plus de douze ans di ci def ay sacrifice te ji war a dëkk ci loolu. te aussi lépp lu promoteur yi laaj ñun ñu koy indi muy mobilisation fu fulaak fayda. donc am na le minimum bu ñu bu ñu mérito donc. Eh, ñun laaj ñu exagéré mais bu jaadoo rek ñu jël ko bëre. combat yéex ndax ci côté adversaire la wala promoteur yi la wala la la. waaw non ñun fi ñu toll sax duñu wax adversaire parce que pare nañ pour bëre ñëpp. bépp adversaire bu ñu proposé bu kase bi jaadoo rek pare nañ pour bëri ko des promoteur yi lay nekk des aussi ñun diggante ak promoteur bi lay nekk parce que aussi promoteur bi mën na la fay loo xam ne du la arrangé amaana moom aussi loolu la man loolu dañ koy comprendre quoi mais xam nañ ne daal bëgg nañ ci bëri deux à trois combats par par saison parce que boo xoolee année ñuy génn yëpp da gis ne man benn combat laay bëree xam nga te loolu du ne mooy Gris nga indi forte mobilisation ndax sa pro prochain combat mun nañ gis lu ko raw. yàlla seede na li may wax nii ñi dugg ci stade bi wala liy jugee Tëngéej ñëw liy jugee Tëngéej te ñëw dugguñu ci stade yàlla xam na ne moo ëpp fuuf liy dugg ci stade hmm. yàlla xam na loolu wallahi azim ñun xam nañ li ñuy xaar. te comme ni ma koy waxee rek. ñun ay lébu lañ te lépp luñ ñu a si xax promoteur wax ko jëf nañ ko def nañ ko. la xam na ne incha allah bu ñu ñëwaatee. ñun dinañ gisaat lu raw loolu. Eh, parce que comme ni nga waxee sax des fois liy tagal combat yi sax parce que ñun dañuy jël suñu alal bi nga xam ne moom lañu promoteur bi fay souvent jënd si ay ticket. man li gëm rek moy tay bo defee un suba da nga wara def deux donc mobilisation biñ def bi passé suba dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy multiplier par deux. té loolu day am inshallah ok nga mobiliser ba paré gaay ciow coow loolu donta da nga daanu mais dañ né dom dangu li war ci diggante mak promoteur bi def nako mobilisation bu bu doy war la def. wax non ñun lepp comme li wax rek ñun duñu ñu lekk aussi OK bépp promoteur bu ñu tëgg aussi boo paree di ngay wax ne rëccu ma woon li mu doon tëgg parce que li ñuy wax ak yow dinañ ko def ba def sax lu ko raw. waaw ñun noonu la ñu mos doxee ko wax dëgg yàlla. mais waa ji pare na pour bëreeg yow de. Mame Balla ay mboqam sax ay prosam gis nañ li ñu def ay appel vidéo ak yooyu noonu <laughs> di la woo dafa mel ni combat bi bëgg nañ ko. ñun pare nañ pour bëre comme ñu koy waxee rek. Mhm. mais yàlla minimum. Mhm. dafa am lu ñu mérito. yàlla xam na ne fi ñu toll ci làmb li ñu war a laaj sax laajuñu ko. Ah. yàlla xam na loolu mais xam nga dafa am ci lu ñu jugee. am fu ñu war a dem moo tax sax ñuy laaj kase yooyu noonu. mais nekkul ay kase yu exagéré. mais ñu ne lu ñu la fayaat bi moom lañ la fayaat. ah loolu xaw ma si dara de. <laughs> Ah, dégg de ñu ne lu ñu la paase fay na la ko mais yow yaa bëgg. lu gën a plus loolu comme li ñu wax rek xam nga tey jii man li ma indi bi paase àdduna yëpp ko coow. te dama ko war a doubler aussi donc aussi dafa am lu ñu mérito wala lu muy jar pour ñu bëre. ok te man comme neexee rek fi pour maam Balla rek. waaw pour laa fi nekkal. ñëpp samay porte dama ko ubbil ñëpp. naa wax sax juste da da da nga kii quoi ni ñu ko waxee da nga saf sap ci ci sociaux yi. dama mbaal sànni oh, waaw da nga mbaal sànni sa diggante ak Youssou Ndour. tamit ñoo ngi koy coow. waaw ñoom ñëpp bëri naa. boobu combat tamit dégg naa xaalis ay millions yu bëri nga ciy laaj tamit. non laajuma si millions yu bëri de yàlla xam na ko. Mm. billaay wala non du man laaju ma laaju ma lu jaadu. xam nga li ma mais am na kase yoo xam ne moom comme li ma la rek. dañ lay oo di la ko wax. da lay leer na yow lii doo ko bëre amul dara bu ma jaral loolu ci àdduna. doo sacrifié wu. non loolu du sax pour man yëfi yëfi yëfi yëfi yëfi yëfi yëfi waaye di la quoi pour man xam nga li la am na kase yoo xam ne promoteur di la ko proposé man su ma axulaay taa naa loolu du ko bëree. booy sap sap yi booy bëri ñoom faa gaay yi te xaalis bu wóor. wóor da jaadu. man bu ñu ma fayee mu nekk booy booy bu saf-sap ak suma moroom ak ku mënti doon na jaadu rek bu jaadoo ñun pare nañ pour bëre ko quoi mais su jaaduwul moom bu la neexee sax bul ñu oo quoi wax dëgg yàlla am na kese yoo xam ne moom saa yi. di la oo di la ko wax sax yëpp la la. ok mais ñaari potentiel adversaire yi euh, doomu daangu d'accord. waaye bu tàllalal ku la def tuddal jox naa la loolu ku la neex waxuma la maam Balla la Youssou Ndour ñëpp tuddal ñëpp. ok Modja par waaye déggoo li ma la xanaa waaw seetaan nañu interview aussi par rapport ak moom sorti bu mu def. moom ñu ngi koy félicité aussi si ndam yi mu toog ah aussi nit ku discipliné la nit ku nit ku yaru la. waaw comme ni ñu koy waxee rek man wax naa la aw ma xaajaa ak seen parce que lamb tey foofu la toll. bépp promoteur bu pare pour tëgal ñu suñu combat n'importe adversaire bu mu doon. contactal suma ménager ñu waxale waaw mais bëré ñu wax diw mom kenn duko dégg ok waaw na jaadu rek ñu bëré bari nga fépp. fépp yàgg na. mais temps amo arrêté da ngay daw rek. non lamba ji amatul arrêté <laughs> ku fi taxaw ku fi taxaw mom dañ la fi bayyi quoi eh, mais lamba léegi non la dé parce que nekatul palmarès. su nekatul palmarès donc li leen mëna bolé rek rek mooy yeah bu njëkk gaay di ñu don taamu ay palmarès dañuy wax. kii du ma bëreeg moom maa ko raw ci làmb ak yooyu mais léegi loolu gisatuñ ko. boobu làmbaar làmb affaire jàmbaar la woon affaire garmi mais léegi boo xoolee dangay xam ne làmb affaire tapale la. affaire la. tapale tapale tapale la ko ngay wax noonu ay palmarès bi ñu koy wax. da ngay gis ne boobu làmb ji dafa amoon ay mbër yu am valeur ay mbër yu maanaam ay mbër yoo xam ne maanaam ay ay mbëru qualité lañ mais léegi da ngay gis làmb xam ne. mbër yi fi ëpp valeur wala mbër yi fi ëpp qualité. dañu nekk si touche ok parce que système bi promoteur yi jël léegi la. mooy ñoom ñooy taxawal combat yu leen neex dangay ngay gis tey ji mbër moo xam ne tey ji deful dara ci làmb. ñu jox ko ku nekk ci kaw a kaw a kaw a kaw a kaw nag comme ni ñu koy rek loolu phénomène la bu génn ci làmb. te kenn mënu ko dàq. loolu moo tax ne tey jii comme ni ma koy waxee rek ñun pare nañ pour bëre ak bépp bu xale wala bépp suñu morom boo xam ne promoteur bi gis na lii combat la quoi. ok Doudou nga ko. non non bëgguma ko de. bëggoo Doudou Sané bëgguma ko non non bëgguma ko. loolu bëggoo tey jii xam nga làmb moom booy bëree mbër dafay am dara loo gis si moom. ok champion la. bu wane ay preuve am ci lutte simple. mais comme ni nga koy waxee rek aussi maanaam du su nekkul suñu choix. pour raison yu bari quoi parce que aussi làmb booy man su may jël mbër. dafay nekk palmarès. wala mu coow yooyu rek a fi am. mais du coow bi du palmarès bi. donc gis nga sawarul ci moom daal. waaw non lay wax nii du palmarès bi du coow bi champion la nag bu ñu respecté xam nga li ma la wax. tey jii comme ni nga ko waxee rek. Mame Balla soo indee tey jii moo doomu dàngu man nga wax ne tey jii fekk bi Mame Balla am ci làmb jaadu nañu bëre man ak moom. nga ñëwaat nga ne tey jii Youssou Ndour boo indee palmarèsam man bett na ma sax xaw ma ne sax bëri na ay 22 combats. nga indi palmarèsam ak coowam. ba nga xam ne aussi làmb bu bu logique la quoi mais boo indee Mahdou Sané mono indi palmarès am mënoo indi coowam aussi donc gisuñu luñu wara def fofu quoi pour dire vrai. wax actualité gis nañ ki nga xamantene moy sen frère euh, euh muy Balla Gaye numéro 2 mom dembo wolu won nañ ko fi nga xamantene moy sen CNG mais wuyu ci wul yoy nan nga ko gisee en tant que mbër en tant que tamit en tant amateur. wa non comme niñ koy wax rek dañu ciy dañuy dañuy tey ji comme ni rek nit moy juum quoi. peut-être la wax na wax na lu marul wax te moom reconnaître na ko génn na aussi xam nga waxaat kanta à bu bi par rapport ak lu tax ñëwu si moom duñ si mën a sori parce que aussi déglu nañ ménagère am mu wax ne aussi xamal nañ ne CNG bi ñu leen convoqué xamal nañ ne Balla Gaye jour boobu du am disponibilité peut-être pour pour ñëw xëy na ñoom ci li ñu nekk ñoo ko xam mais comme ni ñu koy waxee rek nañu dawal compréhension te xam ne Balla Gaye moom aussi mooy làmb. ok lu buñ ko ajee làmb dina ko rëccu. parce que yooyu day am njiit day am ci yëpp. mais Balla Gaye moom comme ni ñu koy waxee rek. CNG aussi suñu kilifa lañ na ñëw déglu leen toog waxtaan ak ñoom comme ni mu ko defee woon benn site. toog Bantamba bi wax ne loolu mun wax bu doon démb tay tey jii mën na ko gën a defar mm-hmm. donc yaakaar naa ne. loolu la rek quoi Balla ñun ñëpp suñu kilifa la te wax dëgg yàlla kenn mënul tudd génn làmb Balla Gaye. Eh. mbëri loolu ñuy kaas comme euh, ci côté dagg beeg yooyu noonu parce que yéexuñu ko kaas. non yàgg nañ ko kaas. peut-être comme ni nga koy waxee nii xam nga tey ji bu doomu daangu toogee wala bu benn mbër toogee kaas ci loolu. dafay mel ni làmb yëpp ñoo ko kaas quoi. Eh, peut-être nag fan yi dafa nekk loo xam ne dafa gën a dañ ko gën a médiatiser rek mais mbër moom yàgg na kaas si ay ay ay ay yu ñu koy teg ci làmb. titre roi des arènes empereur nan nga koy dundee en tant que mbër destination bi fan la doomu daangu yow foo jëm côté bi wala boo côté bëri. waaw non comme ni ma koy wax rek ñun fépp lañ jëm. waaw ah. làmb dafa war a am ay titres yu bëree bëree bëri. Hmm. waaw pour man yu ñu reconnaître parce que aussi sport yëpp a ko am. waaw làmb am na meilleur lutteur meilleur am na roi des arènes dafa war a am empereur am aussi le xam nga le meilleur maanaam titre yi dafa war a bari. parce que loolu mooy challenge bi loolu mooy jeu bi mais bu dee tey jii ñëpp mënuñu bëri titre. mënuñu bëri titre roi des arènes. ah manul ne ñëpp mënuñu bëri empereur. ñëpp mënuñu nekk le meilleur lutteur de l'année. daa ngi daa ngi dégg nga wax maanaam làmb war na mën a am yeneen challenge maanaam le plus jeune lutteur ah boo xam ne mooy gën a toj saison bi war nañ ko def. maanaam waaw non yooyu yooyu yëpp dafa war am ay innovation la yoo xam ne tey jii xam nga li ma la maanaam yooyu yëpp parce que moo ngi fi gars yi ko génnul rek am na ay ay tey jii meilleur combat de l'année yooyu yëpp donc nag gars yi comme ni ñu koy waxee rek ku si nekkax tey jii bi la intéressé am na ñoo xam ne eh, pourquoi pas tey lamb mën na dem tey jii ba empereur bi ñuy wax roi des arènes ndax empereur bëre ah roi des arènes war na mën a boole empereur mën na war na mën a boole meilleur lutteur mën na boole aussi meilleur combat da leen yooyu yëpp du si yàq dara. ok njàmbaar sax ñoom ñu ngi koy wax rek. kon loolu yàqul làmb. non ban yàq ñun bëri xam nañ ne loolu du dara ci làmb te terewul titre roi des arènes amul kenn ku ko mën a contesté ne Modou Lo la. loolu amul kenn ku ñu ko mën a contesté mais aussi yeneen lutteurs am yeneen titre aussi yàqu yàqul dara quoi. parce que comme ni ma la waxee rek du ñëpp am chance dem bëri ak roi des arènes. ok mais Balla Gaye na seen troisième combat doomu daangu boobu nan gisee. waaw non it boo xoolee morphologie tey làmb nii da nga xam ne tey jii si foofu la ñu jëm quoi làmb des fois da ngay dem foo xam ne dangay ngay manqué ay adversaire te fii saison bi toll nii mu bëri fi disponible da ngay xam ne Balla Gaye ak Eumeu Sène Balla kan mooy adversaire am tay jii fi ñu toll nii bu libre da ngay gis ne Eumeu Sène la Eumeu Sène tamit nga gis ne Balla Gaye moo moo libre tey ji amaana bu Siteu wala bu Modou Lo libre ah, wala ñoom Boy Niang Ama Baldé Reug Reug da ngay gis yeneen combinaison mais boo gisee si VIP ñoom ñaar ñoo fi des quoi. ok combat la boo xam ne comme ni ñu koy waxee rek day imposer mais peut être mën na bañ a yàgg. peut être Modou Lo ak Siteu bu ñu bëree rek. mën nga déggaat yeneen yeneen yeneen yeneen affiche quoi. Zarko Gris Bordeaux boobu taxaw na boobu tamit dañ ko gisee foofu laay jeexalee ak yow. waaw dañuy félicité Gris parce que aussi comme ni ñun tamit bu ñu réewee di bëre c'est que pour bëre ak suñuy mag la pour mën a àgg ci kaw. Zarko jox na booy bu nekk chance. gaaka nag ragal la ñun dañu fi bàyyi dem jël yeneen boy kan mooy ragal. Zarko xam nga li ma la wax moom teggi na yoon bi dem jël yeneen boy mais quoi qu'on dise tamit. jox na ay boy chance te change yi mu jox boy yëpp amul kenn ko si réussir. donc aussi mérité na aussi par rapport ak descente bi giri ne mérité na aussi bëre ak moom quoi. Euh. yaa ngi xaar loolu su prochaine combat gars yi may la chance ak yooyu. non man moom comme ni ma koy waxee nii rek man xam naa ne gars yi duñu ma may chance. waaw lu nekk ci yow. non comme ni ñu koy waxee rek dafay am ay réalité yu làmb wax. mais fi mu nekk nii ñun pare nañ combat bëree combat bu logique rek. bu logique rek ñun pare nañ pour pour pour pour pour jël ko quoi te am nañu yaakaar ne incha allah bientôt balaa sori dara sañu combat dina taxaw. waaw parce que moo ngi xeeñ. ok waaw. dafa mel ne waa Rio namm nañ sa làmb lan nga leen di wax. non waar Rio li ñu ma wax mooy danga war a bëri ñaar ñetti combat ah. te loolu si logique boobu lañ ne ñun yàlla xam na ne masuñu si wax waxaale ay combat yoo xam ne day dem ay ñaari fan ñetti fan non non ñun bu ñu waxaalee rek xam nañ ndax dinañ juboo wala du ñu juboo am nañ yaakaar ne dinañ juboo ñii mais am nañ yaakaar aussi ne am na ñoo xam ne du ñu juboo quoi. maa ngi ci li nga xamante ne mooy sa disponibilité di la jaajëfal. waaw non kañ yéen kañ man maay parce que comme moom man loolu su ma yëf la quoi wax wax wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal lépp lu ñuy ñaanal suñu bopp rek jàppale leen ñu ngeen koy ñaanal te lépp lu ñu yéneen suñu bopp rek yéneen leen ko te wax dëgg yàlla gis nañ image yi ngeen di wane vraiment aussi waaw yéen a ngi yéen a ngi tapé fort daal mais mais mais noonu la du ñu du ñu bett parce que aussi xam nañ ñi ñi nekk ñu ñi yor liggéey bi donc yàlla yàlla def jàmm rek li ngeen ci bëgg yëpp aussi ngeen dem ba am ci lu kawe seen seen seen njort quoi. jaajëf. ay jë yéen am leen jàmm rek jaajëf